aywa bis ni la woon na ni daaw assemblée nationale nag daal di rek dàq motion de censure boobu nga xam ne groupe euh, d'opposition euh, yeewi askan wi ñoom ñoo ko dugaloon rek euh, contre le gouvernement bi nga xam ne Amadou Ba noo ko jiite lu ci mën am dañ ci dellusiwaat ànd ak fàttaliku bi Chérif yow la wala Mame Biram yow la kon ñu ànd ci ak Chérif ja dellusiwaat léegi léegi. fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 2021 UNESCO ca Paris daal di inscrire. ceebu jën mu nekk patrimoine culturel immatériel moom mooy plat national bu senegal ceebu jën nag ma nga fekk baax ca Ndar am na yeneen réew yuy togg plat bu ni mel ak beneen variante rawatina Gambie ñu koy wax banatcing wala ca Nigéria ak Ghana foofa jolof lañ koy wax. fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 2010 Yanda Codou Sène daan génn àdduna ca Gànjaay moom mii ñu xàmme woon ko bu baax a baax nekkoon géwlu ki njëkk a nekk njiitu réew bu senegal di Léopold Sédar Senghor. fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 2019 Amadou Toumani Touré nekkoon ancien président bu Mali ginnaaw bi mu dawee làqu fii ci Sénégal bin ko daanalee ñaar fan ci weeru avril ci atum 2012 capitaine Amadou Aya Sanogo moom moo def lu ni mel moom nag ci la ñibbi définitivement ca dëkkam ca Mali ginnaaw ba mu fa njëkkee amal voyage ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru décembre ci atum 2017 fukki juróom ci weeru décembre ci atum 2016 affaire drogue bu Lamantin Beach cour suprême daal di casser verdict bi condamné woon Luc Nicolaï fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 1925 ci lan faat ca New York boxeuru sénégalais bi di Mbarick Fall ñu gën koo xam ci Batlin Siki moom mooy premier africain bu nekk champion bu boxe professionnel ginnaaw bi mu kawoo doomu France bi di Georges Carpentier lu toll ci 60 000 spectateurs fekkee nan ko ca stade bu nekk ca Buffalo Montrouge ca Paris le 24 septembre 1922 ñu taxaw ci datu fukki fan ak juróom ci weeru décembre ci atum 2022 bis boobu assemblée nationale daa di rejeté motion de censure bu groupe parlementaire déposé woon ngir daaneel gouvernement bu premier ministre Amadou Ba ginnaaw moom Amadou Ba bi mu defee discours de politique générale fukki dé juróom fukki député ak juróom ñoo ko voté te ñu ngi ci soxla woon juróom-ñett fukki député ak ñett Sénégal nag bi mu amee indépendance bi moo ñetteelu yoon ñuy amal motion de censure Sénégal nag bi mu amee indépendance ak léegi mooy ñetteel bi yoon bi nu amalee motion bu censure ginnaaw 62 ak 2012 motion boobu nag moom moo wane rek xajjaloo bi nemeeku ci intercoalition Yewwi ak Wallu ba tax ñuy taxaw ci intercoalition Yewwi Askan ba tax ñuy taxaw ci intercoalition boobu di Yewwi ak Wallu ndaxta tasuñu yaakaaru Sénégal ginnaaw kon lan amoon ci ñoom ci élection législative bi ak it déception ci histoire parlementaire bu Sénégal. mun naa wax ni Sénégal yi si ñu bari ñu ko voté woon xëy am déception parce que itamit bu ñu yeggee si assemblée nationale ba dañ doon xaar mbooloo dajoo boo xam ne ñoom ñooy xàccandoo ñoom ñooy dóorandoo waaye gis nañu bu ñu yeggee assemblée daanaka féewaloo moo fa am. te position yi dafa amate dafa mujj ay changé dafa mujj varié euh, ñu si bari sax seen biir am na ay flèche yoo xam ne ñu ngi koy sànnante mu mel ni bu suñoo bokk li nga xam ne liste bu jëm si ay élection législative kon boog euh, li nga xam ne dëgg-dëgg déception daanaka loolu moom ñu ko si dingi parce que tamit am na lu bari lu Sénégal doon xaar si intercoalition boobu léegi nag ndax am escroquerie escroquerie politique la du ma ko jàppee escroquerie politique parce que xëy na sa njorteel ba am na ñu ñu waxtaane woon ñu déggee woon am doole doole boobu bu ñu demee assemblée nationale dëgg la na doxalewuñ ko waaye damay jàpp nag bu ñu yeggee assemblée nationale nag jeu d' yi nag moo jiitu jeu d' intérêt yi la ñu jiital ku nekk amaan na sa cas bëgg nga jox ko loo xam ne keneen ki du ko am ba tax na sax si bésum installation ba gis nga fa la féewloo am c'est la xaajaloo am ba groupe parlementaire yi bañ koy teg ak la ci xew yëpp ak ba ñuy fal président assemblée nationale bi ak la ci xew yëpp si li xam mooy ñàkk déggoo bu intercoalition bu déggoo jëm si assemblée nationale te intercoalition Yewwi Askan Wi principalement jiitu ca jëm surtout li nga xam mooy motion de censure bi gis nga lu si bëri euh, beneen coalition ba bokkoon si intercoalition bi di wàllu dafa béddee donc lu bari daal si coalition bi kii bu tegee day fay béddee ko te lu bari Yewwi moo ko jiital waaye keneen ki day béddee ko kon ñoom ñaar ñëpp dañoo di yeggandoo assemblée nationale ba pare andi li nga xam ne am ni li nga xam ne ŋaayoo te jàpp naa ni la taxoon Sénégal yi voté leen jëm si assemblée nationale bi euh, Sénégal yi daal seen attente euh, gisuñu ko ci te gëm naa ni am nañu déception si nga xam ne nan nañu doxalee si biir assemblée nationale jëm si quatorzième législature aucun de nous n'est là pour lui-même tout ce que nous faisons aujourd'hui sera fait par d'autres demain nous sommes ici pour les Sénégalais et pour eux aywa euh, Chérif mu nekkoon loo xam ne euh, daaw la amoon foofu ca assemblée euh, nationale. waaw Yewwi Askan Wi ak wàllu xam nga ñoom dafa am lu bees lu fi indi woon ci élection législative yi weesu woon. Mm-hmm. li ñu tuddee woon ñoom intercoalition ci ay département yoo xamante ni ànd nañ fa boole benn liste bokk na ci bari na trop département yoo xam te ni bin ñëwee nag ci assemblée nationale même si yow yi dafa am groupe parlementaire boppam plus de cinquante députés waaw wàllu di PDS aussi am seen groupe parlementaire mais dafa dañ woon ci xeex bi yu ci bëri dañ cay ànd boo boolee daanaka matoon na 83 députés moo taxoon sax mu nekkoon 82 mu nekk benn genre ballottage seen diggante ak benn bokk ak wax il a fallu que sax fay ñoom ñu di imposer li ñu tuddee kon euh, nag affaire motion de censure bi ni mu amee parce Amadou Ba dafa ñëw def déclaration de politique générale euh, ku mel ni Abdourahmane Diouf nga xam ne il n'est pas député daal di junj affaire bi rek waaye yooyu def genre récupération dont Birame Souleye ne dina déposer motion de censure waa PDS jàpp ni ñoom yëgalul neen ko mm-hmm. fa la problème bi njëkk a commencé ci mm-hmm. wàllu après na gis nañ Birame dialogue bi aussi ba mu ñëwee tasaaro moom moo diggante bi génn nañ ñoom it ci boobee euh, groupe parlementaire nekk ay non inscrits surtout ci assemblée nationale bi ñu def seen rendre muy déception boo xamante ni ak ànd naa comme mm-hmm. ni ñu ko mooy waa Yewwi seen liste titulaire yi nga xamante Ousmane Sonko moo ko jiite woon amoon na jafe-jafe ba nga xamante ñoom mujj na ànd loolu tax nag assemblée nationale bi gis nga ko benn rupture amu fa boo xoolee sax dañ doon mais cette législature est partie pour histoire bu Sénégal en terme ci li nga xamante moom mooy boobee taxawaay te loolu waxuñ ko woon Sénégal yi nga xamante ni voté loon nañ leen ci euh, loo xamante ni daanaka mosul am ci histoire politique euh, Sénégal waa PDS moom boo xoolee sax finalement moom mooy première force politique en ci opposition parce que am nañ au moins plus de vingt cinq députés yoo xamante may ñu am seen groupe parlementaire. Mm. Euh, Pastef topp ci ak yeneen parti muy loo xamante c'est quand regrettable. Mm. alors que euh, benn intercoalition la boo xamante demoon nañ ba amoon yaakaar ci ñoom. Mm-hmm. Euh, jëm ci wàllu mais xam nga rek réel politique bi dem na ba daal leen di changer surtout dialogue bi bu ñëwee parce que Khalifa Sall nga la waxee xam ne moo fa xew. Mhm. aywa Malick aussi leneen ñu koy fàttaliku muy euh, Batlin Sikki euh, turam dëgg di Mbarick Fall nekkoon itam kàngam ci wàllu tàggat yaram dëkk foofu ca diwaanu Ndar. waaw di nekkoon boxeur. Mhm. Euh, ci bés ni ki tey 22 septembre 1922. décembre 22 décembre je veux dire 1922 <laughs> donc ci décembre 1922 je veux dire ci la nekkoon. lii di euh, champion du monde. ñi mhm. ngi ko boole woon ak tubaab bu ñuy wax Charpentier. Mhm. Euh, keroog euh, ca stade Montrouge la ñu daje. Mhm. Charpentier moom la France gépp bëggoon adulé ko. ki nga xam ne mooy Mbarick Fall téye ko di ko wulli ba sixième round. mu dóor ko uppercut mu dem terre. bi mu demee terre arbitre bi yëkkati loxo Mbarick. ni moom moo am victoire mais pression publique bi. dafa metti woon ci moom ba vingt minutes après. mu daal di changé déet daal di déet Mbarick gagné woo nga xam ni moo di honneur moo tax ñu delloowaat euh, Mbarick plus tard avec l'histoire ñu delloowaat ko li nga xam ni mooy champion du monde boobu. Mm. mi ngi am 43 victoires. 6 mm. matchs nuls. Mm-hmm. benn défaite. Mm-hmm. kooku jàmbaar la États-Unis la wàccee liggéey. Mm. Hmm. mooy centenaire. centenaire bi waaw donc à Saint-Louis les gens vont hmm. mais dans tout le Sénégal moom Mbarick Fall dañ ko war a wane. Hmm. war ko war ko fêter. war a wane ni njàmbaar yàgg na ci doomu Sénégal. stade bu fees dell ñëpp contre la. nga téye waa ji di ko dóor ba mu ni waalee Njaay. ba tubaab ba ni gongo. wuli ko ba mu ne. moom kaw. da ko da ko da ko da ko da ko ba mu ne ko mbaarik yaay saa baay. <laughs> yaa fi ne yaa fi ne jërëjëf malheureusement dafa mel ni héritier ma nga Cameroun. waaw Sénégal moom fii moom. box box bi taxu ko fii. mais Eric Faw def na fi keroog euh, benn gala bu nga xam ne. Mm. j'ai vu des jeunes qui sont en de monter en puissance. très bien donc bu ñu leen jàppalee rek dinañu amaat. dinañ yeneen mbaarik Fall yi. on rappelle que c'est resté aussi leen ndar ba denc ko fa. voilà déjà Malik histoire histoire muy fii léegi rek dafa xaw a ndroog combat Tyson Fury bi ak ngan bi nga xamee ni moo moo passé bërki démb déjà tubaab bi victoire bi ñu ko jox ñëpp nee nañ ni dañ ci jàpp ora moo tax ñu jox ko ko waaye Cameroun Ngadou dóor ko mu dem teer <laughs> ñëpp naan Ngadou la ñuy yëkkati loxoom ñu yëkkati loxo Tyson Fury loolu rek mooy mbarit mi mhm. mais nag bële pression publique bi la ñoo ne ko du fi amee mhm. noir bi du jël ndab li ci suñu kaw ci la yow ñu dóor la nga kaw mais war nañ ko gën a jëmmal nit ñi xam mooy kan ci taxawaayam Sénégal nag malheureusement dafa mhm. am ñoo xam mooy leen doon wax ci Cheikh Anta Diop barki bari nañ culture ak yenn mel. mais malheureusement buñ faatoo ñu fàtte leen. alors que kii war nañ koo gën a xamal xale yi. Mhm. ngir ñu mën cee roy. allah jërëjëf mu nekkoon euh, actu commenté bi euh, euh, un jour au Sénégal pardon un jour dans le monde ñu dem très rapidement ci xibaar yi ci gàttal ànd ci ak Cheikh Tidiane Diaw.